wax sànq dafa am benn silmaxa bu ñëw moom yowaan bi muy jox jox ko dara ko kene ko def yàlla na la sëñ Tuubaa defal nangam wóolu ko mu ñëw mu ne ko da nga naan yàlla na la yàlla defal nangam ci la def sëñ Tuubaa xam nga loolu mooy doxi maanaam nguur jëpp noonu ci bopp yàlla nguur jëpp rek soo ko jëlee yàlla nag soo nekkee ne sañ ngaa mel ne nga bindul leetar Abdoulaye Wade du kon mu mu deful dara waaye yaakaar na ci waaye fekk naa da ngaa xam ne Souleymane Ndeye rek te yow yàlla te tur naa la Abdoulaye Wade xamu la nga bind leetar di defee turu turu su man na Souleymane ne ko joxal ma ko góor gi Souleymane su jëlee benn leetar ba signé sax jox ko góor gi góor gi moom du du xamu la yow moom la xam la nga bëgg te ram mën naa mooy ci affaire jiw leetar bi bu bu jógee ci yow jëm ci suñu borom jaar ci sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa rek di jiw turam bu jógee suñu borom du du xool bu suñu moom sëñ Tuubaa la day xool loolu mooy barke jiw waaye nag ci moom dikk moom moo yàlla yàlla moom sëñ Fallu mu baax ma mu saa waxtaan ci kër kenn ci waa kër sëñ Fallu yi di wax ma ne leen ab kaso def bàyyi Cheikh Mate Diaw Balla ñoo ñoo nekkoon Thiel kaso def ñu ne ma yokkaan Thiel sërëm nga ma ne leen li naan sëñ Fallu dafa wax ne kat sëñ ci waa moom su woo li ma wute moom mooy su soxlaa ba yàlla da dafay tekki man nag sama su ma soxla yàlla moom muy tekki ma ne sëñ sëñ Fallu boo xoolee maanaam ndax yàlla ñëwul ci temps ak espace ñëw ci de yàlla du du du tuxu waaw tuxu moom ci mi ngi mi ngi bokk ci matière soo ko ci gëm ne yàlla day day tuxu rek gëm nga ne kon yàlla moom matière la te soo di matière lu ne ko moom lu ñu bind la yàlla seen bind ko yàlla yàlla du du tuxu de yàlla bokkul ci la li ñu xam day xam sax lu muy doxee bon su ko soo waxee loolu ba dugg ci kër ga day taxaw mbala ni cinéma li nga wax day si lu moom laa wax nee na kat li ñu naan loolu li ma wax maam déedéet day def lu bu yàlla dogalee dogalee les dara awale ko ci safara mi ñuy mu mu tudd ko ma ne ko ma ne ko sëñ bi kon téye téye téye koy xam topp nit ñi maanaam ba nit ñi xam ne si si loolu loolu laa wax maanaam nguur yàlla ci moom kenn suñu ci seeram ab seero rek amul ko ko sëñ ci nguur yàlla ci dara bëggoon naa daal loolal maanaam taw xiit gi ñu fàttali ko xam nga xoolal suñ ci waa ba mu demee ca ca ci askamara xam ne su su suñu la ne ni ngay nee ma suñ ci waa bi ngeen liggéey jox ko suñ ci waa boobu ko askamara bu ko ko jëloon junni gërëm ñu ngóorlu ngir rek yeesu yo xaajiriya ci moom ndax booba askamara booba nee ñu mooy xut bu sabali yi te mu jox ko junni gërëm ñu ngóorlu boobu junni gërëm ñu ngóorlu boobu bañ lool ndax ndax ndax ci at yooyu rek bëri bëri booy maanaam gërëm am na booba kon man ko ko jiw jiw jiw bi moom ko ko ko rey na ko lool ak wala bu ko téye sëñ bi sëñ bi lu tàggu tàggu toog moom man zanna gayra allahi yuxni aw yadur te yaakaar ne kenn mën naa jëriñ wala mooy lor fasaada fi daarayni zu kadbin wa dur soo ko àdduna alaxira dana dana xalsa naa toom de yaakaar ne tuul yàlla man nag léegi ñoom yow kooku xaaral sa sa si la doon def si la xamante ni waa mi ngi wax ak sama ne ko man kat gëw ma ne yow yaa ma jëriñ te li nga xam ne bii gën a méngóo nag ngir wormal yàlla ci li mu la chef dara ji ji nga am waaye man xéewal nag lor maa ngi ko yaakaar ci borom bi mu ne mu ne ko ak durru wan na ko min rahmaani laysa min al bidaani wa sudaani ci loolu njëriñ day néewul ci ñu weex bi ak war kooku dana ko def bu def daanaka fi mu ne ko ñëwal ñu yor ñëpp ci am looloo ngeen mu turuñu ko mi ngi mi nekk ci loxo yàlla ne ko addurru wa naqu min al jabbaari laysa min al fujjaari wal abraari loolu ngeen ñëwul ci ku baax mbaa ko bon dara addurru ci wa naqu min al muhtaji laysa min al a'daai wal ahbaari ne ko ngeen ak loolu nit ku ci ab soppe mbaa am noon ci def sëriñ bu donga bu ñu ci ab sëriñ soo ko gën a gën a ngor la booba ba noppi di di ko wax lii naa ko mën fiyaay man maanaam parce que ci ci ma ne muy fii yàlla kat daa teral ma ñëw daa teral ngir jëm yàlla def waaye nag yàlla kat tey mën a jëriñ loolu la suñu ay ko bëri ñu ñu ko adé woon ak sëñ Tuubaa ate ak ate gaaw sëñ Tuubaa wax na boo demee ci ma ma ma ma ma nga boo xam nga dëppoo kenn ci wàllu yu yàlla yi nekkoon kër gi ñu tuddee ko Badiou Samaan an-Nursi Badiou Samaan Sayyidu Diin an-Nursi ci suba ñoom ñaar ñoo xaaree ñoo ko bokkale képp rek dañoo wax ne inna aala almaqamati fi hada zamani wa baadahu iskaaru tawxidi fi lqalbu nee na maqaama bi gën a rëy ci jamono ji ak di ñëw mooy da defee ci sa xol bi tawxid ñuy tal yàlla saxe su din mosi moom fekk te ne soo xale ji jeandi sufikaatam jamono du itte woon lu may dugal tawxid ci xol yi rek li gën a gaaw mooy tawxid man de tawxid moom dund naa ko yéen damay wax xam naa ci ndimbal lool ndax dund naa ko ba yëg ne yàlla de dana may sarax loo xam ne maanaam xaw ma woon sax ne loola am na ko dama koy ñaan waaw ma ne sëñ bi sax bu mel noonu xale yow da lay jox ba danaa jox loo xam ne xaw ma ko woon sax dama dama ko ñaan dem leen la ko yokk nag nga xam ne sax mënoo war a ñàkk lii ah kay kooku moom mën naa mën naa dégg mën de mën na mën naa ànd ak moom de ndax kat xan mooy al al al rëññi jiw mooy daa yor ba fa jàll te lam yor moom du jeex suñ doom ba suñ sang baat ñu si daal di salaatu ci ci wa salaam dañuy barele barele seen seen seen barele ga ci biir barele yàlla ci la rek yàlla ne moom barele doom néewul ci biir barele kenn ndax daa ëpp lépp moo tax kon daal maa maa ngi fàttaliwaat bu baax ginnaaw bi ma koy fàttali sama bopp mooy tawhid bu ñuy sel yàlla man daal lu lu ma neex la lool lu ma gëm la lool ku may gëm ku may wormaal dama lay wormaal di jëm yàlla ji rek waaye nag xaw ma kenn kenn dal ku dul yàlla nee na laa ilaha illallah xam nga li ma jëlee mooy day day dàq nag kenn mënut yëgul tinul xamut fii ak fanu jëm ku ma yàlla. oh dina neexa de laa ilaha illallah moo tax si doon ñu ñu ko sikkar maanaam di sikkar laa ilaha illallah boole ko ci ci di di di sikkar masaa booy wax laa ilaha illallah ni mu foore ci wenn waxtaan benn waaye dafa daal jóg sikkar xamaa sax ku baax la ma ne ko ma ma teg mu sikkar ba noppi mu jël ma ne sikkar nag ci dafa dafa am lu ñuy wax di guru jawaare ci nit ñi la sikkar xamoon nu mu sikkaree bañ a mooy yàlla xol bi day sikkar xam nga lu lu mu sikkaree wéetal yàlla roo gi da day sikkar xam nga lu muy sikkaree maanaam lenn lu dul yàlla du fenkat ca xol ba lam yoon lu muy sikkaree baat yooyee muy arf yi mu mu koy tudd di di xam maanaaya xel mi xam nga nu muy sikkaree mu xam mu muy xool ci lépp yàlla ci nekk suñ tubaab nee na lam ara xayrahu wala arahu fi cheyin xadaa wala wala nee na man de gisuma ku ku yàlla waaye nag man dama ko sell am na ci suukaake yi ci yoo xam ne dañoo du du ma gis dara du may man ci yàlla te bala man ci yàlla te loola waaye loolu kiiraay la yàlla ko ci ci dara suñ tubaab nee man lam ara xayrahu waaye wala raw fii si nag waaye nag loolu mooy wutaar ñi gis yàlla ci lépp ñooñu moom mooy wusul waaye wusul ga dafa am lëndëm mën na laa dugal ci nga yaakaar ne li ngay gis yàlla dëgg du du yàlla xam ngeen ba fekkat ci seetu ba rek seetu ba ba bu dojoon da da nga xam ne seetu ba du du moom leneen la si tuwaa nag ñoom dañ ne man gisuma ku may yàlla waaye du ma ko gis sax ci dara oh kooku seen biir guddal yàlla de seetal maa ngi guddal waaye ci seetal ba mu ba mu demee ca juróom daal benn mbokkum taalibe bi bambara moo ko moo ñëw ci sëñ la di ko di ko nekk ne ne sëñ sama man de fekk ci woon naa see mu ñàkk loo xam ne bëgg naa ko wax bala mu mu mu fa jógee ndax mag laa ne ko tey suñ tubaab bi ñëwee ci juróom daal ba man booba transport laa woon ci biir ba commandant wala gouverneur général wax ne ci jot li sëñ bi nekkoon na bindi kaala gi sëñ bi nanguwul nee na kon nee na góor na jug da daal di yëkkati kaala gi nee na bu yëkkati kaala gi di jëme nii ca wax bi yëkkati ko jëm noona mu def ko nii ca wax jëm noona ko ma ko na daal di ko tegaat bopp bopp ba mu jëkk mais nag xam ngeen booba kaala ga boobu lu muy lu muy représenté xanaa booba laa ilaha illallah booba dara boobu lislaam dong lay représenté moo tax doolaa ko maanaam sëñ tubaab li mu am lépp lii te yàlla jaare maanaam dalla ne laahu maanaam Muhammadin la wax yàlla yàlla laa xam ne moom du ma ma ne ko daan na ma ne ma ne waaye taw ba dinañ ko dee mooy kee kon ngeen fa ñoo de laa ilaha illallah ak am ngeen yi boobu moo tax dañuy ci bi kaay ka su su taam ne dee leen ko sax seenu ku nekk ci wàccaay dinañ ko xool sax fekk nag buñ la ko waxal di dellu wax ci wetam rek mu mu muy xam ne ah ba mu ba mu miinoon ma ko wax su mujjee ci ci ornamee rek àjjana la jëm oh aj suñu borom ci ci waa nee na ci suñu ko kulti waa yi ñu dara dara dem alaxira xool bu dee dina suñ ko suñ suñu borom ne ko ah loo ko dugal ma ne ko xanaa jëna ma ma ne ko ma ne de dama ko do do doon jaay yow ma ne ko ma ne ko la ma ko daa yi daa ci laa rek nga gëm ne man rek ah oh suñu borom de xam nga ni di li ko téye ci soxnaam yàlla nit moom de yàlla ak la fiir yàlla lépp loo ko booleel mu ne la ana ard na shuraka boo ne yàlla diw yàlla ne ma kat li nga soxlawu ma te te ma ne kat yàlla def du soxlawut loo jaay alaxira ba ba tax kenn jënd bu dee lu baax kenn bëggul ndax pour yàlla su ko su su ko dindul soo ma jëriñ kenn loo koy jaay lu mu rëy rëy te yàlla kii bi jël loxoom kenn du ko jël moo moo tax yàlla rek loolu moom ma koy fàttali bu baax a baax xamaa ne di di di di dégguloo sama waxee ni ñuy fekk nii laa mën a mën a nii laa baaxoo waxe nii laa mën a waxe it nag wax ji mën naa bañ a bañ a neex mën naa bañ a dëppoog xol yi mën naa bañ a dëppoog xel yi waaye man nag di di maanaam jëmmi suñu borom ñi nag da damaa gën a lépp nag su ma ñàkkoon lépp daal damay wax ne lu waay am téyel man daal bu bu ma ñàkk yàlla rek man damaa ñàkk lépp la wóolu yi lu seen li am lépp la dafa mën nañ ko téye man soxla mooy dara xam ko ma soxla yàlla da damay wax ne àjjana jii ñuy wax pare dama ko ko ñaan man xam nga loolu ci ci taxa àjjana ak Mariam parce que am dong la ngërëmul yàlla ni damaa gënal ngërëmul bu yàlla it su ma ko xamoon ba ba noppi xam nga lu ma ñu soxlaa yàlla nekk ci rek wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu jërëjëf Cheikh Moustapha Kay